mais nan ngay analyser euh, li nga xam ne moom mooy posture Amadou Ba am na ñu bari ñu jàpp ne euh, ay xeltukat yu jàpp ne euh, warul woon co-signer le décret bi nga xam ne moom moo moom moo moom moo jublu moom moom moo aju ci wàllu wàllu wàllu report bi ñenn ñi ñu ne il fait preuve d'une faiblesse coupable il avale beaucoup de couleuvres comprendre ñu lan moo tax du dem dem euh, ñenn ñi jàpp nañ ne comme ni nga ko waxoon bu demoon moo gën ci moom ñenn ñi ne mënagul dem pareegul pour dem lan moo si Amadou Ba pare na pour dem candidat yi nekk Sénégal yëpp yëpp yëpp moom rek a pare moom moom moom bi avant campagne bi démarré lépp a ngi sur place lépp a pare. non je parle pas de dem campagne. c'est que noonu noonu noonu non non non pare woon na sax pour génn ci Macky Sall dem ka man dama la bëgg a wax noonu moo defee noonu la mel xam nga li ma la moom noonu la mel cest à moom du nitu fitna moom du nitu xëccoo moom du nitu xiiroo di nitu ŋaayoo moom noonu la bindoo xam nga ku nekk xam nga ne aussi ku nekk ak sa nature est-ce que bu baax dégg nga baax li ma la bëgg a waaw moo tax ma jàpp ni mënta politique waaw mais moom noonu la bindoo. mënta politique maanaam du nit koo xam ne nit du nitu conflit. da nga wax bi Amadou Ba du nitu conflit xam nga yàgg naa la ko wax ci sa ci sa émission. waaw ma ni la moom da ngay wax mun la non defar moo gën yàq et puis xam nga loyauté ci président de la république ndax xam nga aussi même bu dul dara sax protéger président tey mooy protéger république bi. parce que so affaiblir président da ngay affaiblir république bi ak yu demee noonu quoi